nga corriger ko mu normal réew yi ngay gis nit ñi di kii di normal yëpp mm. parce que xam nañ ne booy jàdd gaa yi pes la nga du ñëwaat xoolal covid bi rek Chine waaw bu ñu xëyee ne bu kenn jënd état bi bu xëyee bu kenn jënd nit ñuy bari bari yëpp kenn du jënd da ngay xool réew mu mel ni Chine ñu ne plus de un milliard de personnes dañu am bu ñu amuloon discipline foog nga ne Chine dina dox un milliard de personnes nga un milliard de gémmiñ nga xëy leen dundal un milliard de ñu respecté wul dara xaw ma ndax yaa ngi seetlu affaire <laughs> maanaam looloo am Sénégal respecté wuñ dara faale dara man fekkee naa benn réunion boo xam ne mooy bi accident six kilo amee. accident bi bi mu mm-hmm. amee. Mm-hmm. premier ministre Amadou Ba di présider réunion pour ñu ne dañuy jël ay décision mm-hmm. ba waxee ba pare. il y avait il tout le gouvernement il y avait les transporteurs il y avait les chauffeurs il y avait les consommateurs mhm. la gendarmerie tout ça mhm. benn waaye dafa taxaw na ko ah, mais premier ministre ci biir mhm. mais premier ministre mais boo defee loolu gars yi dootuñu laaj léegi deux mille cinq mille la ñuy laaj eh. que yaa ngi may dégg ma la waaw chefu gendarmerie ngi toog chef police a ngi toog ñoom ñëpp ñu ngi toog ministre yaa ngi toog état bi toog waaye taxaw wax loolu directement révélé une corruption l'état de corruption. non non non maanaam maanaam mais kooku xaw ma xaw ma nag yaa ngi imaginer. oui foofu la réew mi toll. voilà beneen réunion boo xam ne Abdoul Mbaye moo nekkoon premier ministre toujours réunion ak les transporteurs. Mm-hmm. Mm-hmm. gars yi di wax nanguwuñ dégluwante. Mm-hmm. kenn ku nekk di wax ñuy xuloo presque daanaka. premier ministre ne non nañ organiser réunion bi. parce que mënu ñëpp mënuñ waxandoo parce que voilà. gars yi ne ko dañuy wax. dañu fa par force. mu ne non waxuma bu leen wax mais nañu ñu joxe parole bi c'est une réunion organisée nangam gars yi ne ko waaye dañuy wax. mu ne su ngeen arrêté wul ma arrêté réunion bi gars yi ne ko kon di nga arrêté réunion bi wax duñ duñ noppi. mu jóg gedd ñi bi réunion bi jax manque de respect boobu ñu manque respect état. Hmm. yow ban état normal nga jàpp ne loolu war na mun a ne. ñu ne lii état la. su ngeen yooyu tànk que réglé wuñ loolu. Hmm. du sotti. Hmm. Euh, indiscipline bi nga xam ne moom moo moo am ci réew mi mhm. lu bare bare bare bare bare bari moo koy waral mhm. c'est très important li may wax nii donc kon suñu waxee jub jubal jubanti <laughs> mais nag da ngaa war a jub ba pare ah, jub jubal ba pare doo ko mhm. jubanti maanaam euh, loo xam ne la lu lu du du du du yëfi caaxaan. slogan la nii rek. waaw mais loolu c'est Sénégal nii. waaw parce que tamit la la droiture coûte cher. coûte cher jub jub dafa cher. dafa métti. <laughs> jub dafa cher. jub dafa métti. parce que ki nga xamante ni dafa ah. xiif ba tàggali ko sago. Hmm. mais kooku da nga koy teree sàcc. déedéet. waaw mais loolu c'est pas une raison parce que waa ji dafa xiif moo tax mu war a sàcc aussi. c'est ça waaw mais dañuy wax rek parce que beneen bi non tey jii beneen bi mooy tey jii yow sàcc bi lay sàcc. Hmm. mooy sàcc bi sàcc sa kii kooku mm-hmm. mën naa xiif moo ko poussé du raison waaw mais ki nga xamante ni euh, yow yaa ko sàcc bi ngay tànn nag ki nga xamante ni yaa ko fal pour mu sàmm la waaw ah, mu fekk mu lay sàcc mu lay far mu lay sàcc exact mais boobu a grave quand sàcc la yëpp sàcc la <laughs> maanaam maanaam xam nga léegi-léeg tam état de gars yi Sénégal yi dañuy def ay problème yoo xam ne tam jaaduwul ngay gis benn intellectuel bu taxaw wax ne way mm-hmm. ñu ne ñu ne diw sàcc na jàpp nañ ko wala nangam ñu ne non non pourtant am na ñu ko fi def waxuñ leen dara déet moom kay nañ jàpp rek nañ jàpp. <laughs> képp koo xam ne tegoo ci yoon nañ la teg ci yoon mais. Euh, euh, du man kese gisuma réew moo xam ne sàcc yëpp jàpp nañ leen parce que day dina am ñu rëcc. mais dans tous les cas. Mm-hmm. képp koo xam ne xam ne gars yi xam nañ ne dafa sàcc ñu am preuve ne sàcc na dañ ko jàpp dañ ko punir loolu nga jàpp ne moom lañ war a def. maanaam respecté daal gis nga sart yi nga xam ne moom la état tëddee. Mm-hmm. mooy loi yi mooy réglement yi maanaam décret yeeg arrêté yeeg yooyu. su loi waxee nangam ku ko teggi nañ la tegaat ci yoon wi. nañ ko appliquer ko. voilà parce que sinon euh, euh, euh, li ñu li nga xam ne moo tënk nit ñi mooy loi yeeg règlement yi moo tax ñu nekk état. Mm. moo tax ñu nekk sénégalais su fekkee loolu respecté wuñ ko mais duñ dem donc c'est très important que ñu d'accord ci base ne ah loi mu mun na bon. Mm-hmm. boobu nañ ko changer. su loi amee nañ ko respecté. loolu mooy base yi. donc ce qui fait que euh, suñ jubloo ci loolu day baax léegi nag. état dafa war a à part ay loi ay kii affaire yooyu dafa war a jëmale nit ñi nag ci développement. Mm-hmm. jëmale nit ñi ci développement day laaj nga def ay programme yoo xam ni dina tax réew mi jafe-jafe yi sénégalais yi nekk dëñ walla wàññeeku euh, xaaruñ état ci ci rek ne woy woy woy kuy sàcc ne nañ ko jàpp d'accord kuy sàcc nañ ko teg ci li nga xam ne moom la yoon wax mais à part jàpp sàcc defar réew mi tabax réew mi mu dox tabax mentalité yi. Mhm. c'est très important. parce que boo xoolee fi mu ne nii ñun fi jëm xamuñ ko de boo xoolee xale yi nga xam ne ñoom ñoo am ay quatorze ans léegi côté yooyu jëm yooyu xale yu góor yi ñoo gën a bari xale yu jigéen yi léegi. waaw maanaam recensement bu mujj bi loolu la wone te nit ñi yaratuñ seen yi. borom 14 ans yi jëm 30 ans booy yooyu yëpp léegi lu lu si lañ bëgg maanaam fexe am xaalis léegi léegi léegi saa ñu jaar ci leneen euh, njàng mi toppatootuñ ko fulaatuñ ko euh, boo xoolee ñu ci bari fi ni seen njàng soreetul parce que bëgguñ kon ne di jàng. Mm, dafa metti dafa metti donc euh, parents yi taluñ leen donc ñi ngi seetaan ñàkk jàng di gën a sax. te réew moo xam ne ñàkk jàng ak ñàkk qualification dafa faible réew mu du développé xam nga Chine lan moo tax mu nekk léegi tey première puissance mais parce que Chine dafa nekk ci ay ingénieurs ëpp na dix millions d' ingénieurs presque xaw ma vingt millions d' daanaka la ingénieur maanaam li ñu am ci ingénieur daanaka moo ak Sénégal. parce que seen seen seen seen seen seen université yi ñoo koy produire. quand même exactement seen université ñun suñu université yi ay lettres yi produire ak ay mais mais am na léegi am na yeneen kii mais mais njàng mi dañoo dematul sax université léegi. maanaam njàng mi moo reculer su jàng reculer qualification reculer mais xoolal tey jii fi mu ne nii ñu nekk ay maçon ñu nekk ay yenn ouvrier yi dafa commencé di wàññeeku di wàññeeku nit ñi da ngay gis xale yi dañuy sawar nekk am ut benn jakarta di ci am léegi léeg xaalis plutôt ko dem jàng métier et cetera mais dina am période boo xam ne ñun dootuñu am ay qualifié ci ay ouvrier qualifié. corps de métier yi yooyu. guinéens yi ñooy ñëw. Hmm, étranger yi. maliens yi nigérians yi ñëw mm-hmm. su ko defee ñu ne voilà gars yi jël nañ suñu liggéey fekk ñun ñoo ñun ñoo bàyyee bàyyeendeku ba tax ñeneen ñëw jël li nga xamante ne bi moom mooy euh, moom mooy suñu liggéey loolu moo tax il faut que état tam commencer parce que gérer c'est prévoir commencer réorienter réorienter gars yi. Mm-hmm. pour que mhm. ñu mun a am qualification yoo xam ne dina tax ñu mun a dox. Mhm. alors mhm. rapport corps de contrôle yi. ban lecture nga ci am ak peut-être lan nga jàpp ne moom la ñu war a def. parce que yooyu aussi dafay dem ba. impacté ci. waaw rapport corps de contrôle mooy li ñu wax léegi rek. waroon na def ci Covid bi day le ministre de la justice wax na démb ne. dina dinañu jox une suite euh, à ce rapport là. de la cour des comptes sur euh, le fonds Covid. rapport cour des comptes